ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre atum 2024 yëglekaay yi li ñu xëyee Chérif ñu tàmbale ak l'observateur l'observateur la ñu tàmbale ak conférence de presse su gouvernement bi njiit la daanaka moo nekk ci euh, yéenekaay yëpp muy Ousmane Sonko ñëw na kon ci euh, dette bi di bor bi inflation ba ci sax croissance sale maquillage sale nag ak santu ki fi nekkoon président de la république di Macky Sall ndax ñoom dañoo jàpp ni kon ay chiffres yi ñu daan joxe dara du ci dëgg moom la Ousmane Sonko wax gis nga ko boo xamante ni kon tax na koom-koomu Sénégal ak risque bi mu mën am maanaam génn gi gouvernement bi génn ci environnement des affaires ba ci éclairage yoo xamante kon ñëw na ci 604 de francs CFA yoo xamante ni gis ko kon annoncé na ne dina topp ñii seen jëmm ngi nii gis nga ko muy Macky Sall Ba mi fi nekkoon euh, premier ministre ak ministre ki ko fa wuutu di Abdoulaye Daouda Diallo ki mu fa wuutu aussi di Moustapha Ba ñoom ñëpp seen turam ak tam prudence yi nga xamante mbir yi bi nag kii tudd nañ ko ci muy Cheikh Diba mi nekk actuel ministre des finances et budget moom mi nga xam teewut ci conférence de presse bi jamono mbiram reddition des comptes kon pôle judiciaire na li nga xamante ni mooy liggéeyam gis nga ko Lat Diop dem placé nañ ko sous mandat de dépôt am nañ ay chef euh, d'inculpation maanaam ay tuuma yoo xamante ni kon moom nan teg ci euh, ndodd ki fi nekkoon directeur général bu ONAS Macky Sall mi ni wax sax gis nga ko ci assemblée général des nations unies daal di nañ koy tab rek mu nekk président centre mondial jëm kon ci mbiram changement climatique ak yu ni mel kon euh, démb sax annoncé na ko ci réseau sociaux yi moom ancien premier ministre ancien président ñëw ci annulation décret président bi nga xamante ne moo convoqué le corps électoral ku jegi rawatina waa atel de noo rek saisiroon euh, conseil constitutionnel dafa mel ni attikaay bi daal la ni débouté kon élection buñ sukkandikoo ci kër googu faaw mu daal di am ki nga xamante nag mooy gis nga ko Robert Bourgi moom it am na benn téere boo xamante bind na ko moom mi nga xamante daal xam na bu baax les palais ci Afrique ak jëflante bi doon jëflante yenn chef d'état yi moom ñëw na rek ci livre bi nga xamante mi ngi ko tuddee ils savent que je sais am na lu ci jot a wax sax sa France 24 gis nga ko ay dollars yoo xamante ni um, Ablaye Wade daan na ni bitim réew la ñu jóge ñëw ci Sénégal occupé yenn quartier yi ak bousculade bi nemmeeku ci équipe nationale rawatina kon ah, ci li nga xamante mooy couloir bi diggante Jacob ah, Malick ah, Diouf ak ki nga xamante mooy Michael Faye. enquête Chérif. grave accusation de Sonko la ko daan tuddee muy tuuma yoo xamante teg na ko ci ndoddu régime bu Macky Sall mi ngi nii kon le premier ak gouvernement bi nga nekkoon gars yi falsifier li nga xamante mooy indicateur économique la DPG de Sonko rek moom moo fi génn ak tamit sort de certains proches du premier ministre en question rawatina ñi nga xamante kon ba léegi ñu ci doon ñëwaat kon ci dogalu conseil constitutionnel commémoration batalo Joola daan gi ak taw bi nga xamante tamit euh, baax wax Sénégal. carnage organisé mel rek li nga xamante ni daal sàcc ci ni doon defee alali Sénégal nguur gi fi génn soleil daal di ñëwaat ak chiffre yi révélation yi démb kon mi nga xamante ni euh, bu euh, état central boo xam dem na ba ci milliards yu daal topp gis nga ko rek produit intérieur bi RIT la ci am gën ci ñëwaat gën koo yaatal ak ka jiite sax gis nga ko daal dinay am na ci loolu tappale gi nga xamante ci la daal nekk port autonome de Dakar mu jëm ci importation sans déclaration jëm ci ay paiement ki fay yoo xamante ni daal ci marchandise ak yu mel am na benn mafia boo xam daal pompé na huit milliards de francs CFA ay faux ci këru dossier bi douane nag daal intercepter ay chèques yoo xamante direction ci wàllu ordonnancement tamit obligation ay yu wàllu cautionnement yooyu yëpp ñëw na ci ba tax na kon parquet bi bëgg nañu daal ci ubbi benn information judiciaire ñoom seen kilifa di pro euh, ministre de la justice mi noonu gis nga ko daal sax désigner ay six juges d'instruction yoo xamante kon ci tribunal bu Ndakaaru ca jamono jooju Lat Diop moom daal daal dinay révélé li mu tuddee ampleur u carnage bi maanaam rek ni gars yi defoon ak alalu Sénégal di ko foye lu toll ko ci deux mille cinq cent milliards yu daal di utiliser ci dara lu daal di leeru ci wàllu secret défense Amadou Ba Moustapha Ba Abdoulaye Daouda Diallo Macky Sall kon daal dina leen viser Bougane Gueye Dany moom dafa mel ni gis nga ko rek euh, mi ngi topp tànk Ousmane Sonko fu waa ji génnee su paree moom itam bu daal def conférence de presse gis nga ko nee Sonko li nga xam ne mooy signature du Sénégal jëm kon ci marché financier mondial.

itam premier ministre na sax ay poursuites judiciaires contre ñi nga xamante kon ñoom ñoo yooyee kilifa mu jëm ci dette bi di bor ba ci déficit bi ci wàllu budget ak tamit euh, lim jàpp ne ko du dëgg li ndaa wax sénégalais yi jëm kon ci chiffre économie bu Sénégal lan Diop daal dinañ ko yóbbu ca kaso ba conseil constitutionnel invalidé na rek li nga xamante euh, kon mooy ca bitim réew. ñu xool bés bi le daal di ñëwaat gis nga ko Sonko présente une épave jëm kon ci euh, li fi Macky Sall bàyyee que ñi fi taboon ci ministre des finances ak chiffres yi nga xamante jëm na kon ci wàllu déficit beeg moom sax révélé ne Moustapha Ba a fait sax même des aveux Mamadou Ibra Kane euh, moom mi nga xamante ne gis nga ko allié wu euh, Amadou Ba la gis nga ko jamono jooju gis nga ko bourge ouvre kon li nga xamante ne mooy les mallettes ah jëm rek ci ay révélation yoo xamante ni xaalis bi doon dox diggante France ak président yi nga xamante ni kon ñoo nekkoon fii ci Afrique ak Macky Sall ak ay Blaise Compaoré ñëw na ñu baax a <coughs> Lat Diop daal dem ci kaso moom Macky Sall gis nga ko ban ki mun la daal di succédé et puis tamit dem ci Grand Bazar ndax jamono ji amagum nañ 49 listes en attendant justement leur validation par la direction générale des élections lu mu xëyee kii nag démarré na campagne am buñ sukkandiku journal bi ndax grosse accusation régime bi ñëw également gis nga ko rek au malheur biir réew mi ndax lim fi taw bari Sonko gis nga ko rek ñëw na ci a a. a loolu ba léegi gis nga ko muy Sonko euh, rase le Macky wante nag moom it bugaan gi daal di daan na koy euh, wax loo xamante gis nga ko weñ wu dal rek daal euh, faatu gis nga ko mi ngi noonu plus de milliards yoo xamante kon dépensé nañ ko ci quatre dernières années yi tamit cëkkale la def finalement yóbbu nañ ko sa kaso beneen kilifa jiite Locafrique di Khadim Ba jamono ji kon il est toujours en garde à vue soxna Aïda Mbodj tam gis nga ko mi ngi mel ni mbirum entrepreneuriat am na loo xamante kon dernier nga ci def buñ sukkandikoo ci journal bi. Le Témoin quotidien. état wàllu budget économie fii ci Sénégal li fi Macky Sall nekk yëpp ay tappaleek rek yooyu la ci daa dem moo tax nu mu tuddee ko maquillage ak déficit budgétaire bi nga xamante gis nga ko rek dépassé na ko baax baax bor bi tamit mu ngay kowee ndax dem na ba ci pour cent romb lool li naan critère ya jëm ci lu ni mel puis six de francs CFA yoo xamante ne waroon ko utiliser presque entièrement consommé nañ ko ci atum France kon xaalis bi daal dem ñëw ci Lat Diop mi nga xamante ni finalement dem na kaso. Sud régime à la barre dafa mel daal procès ancien régime bu Macky Sall moom la Ousmane Sonko gouvernement am doon def démb journal bi daal na ci ñëwaat ñëw ci situation catastrophique boo xamante rek ci finance publique la ak les chiffres comme ni nga waxee bari na yoo xamante ni kon daal dinañ koy révéler. tàggat ah, muy jaayeen bu mag bi mi ngi noonu moom Serigne Boulaye. ma ngay toj fa nga xamante Lazio de gis nga ko Europa League dafa dugal ay bit yu bëri gis nga ko dafa fa mu jógee nag dafa sori sañ ja il fallait que mu def lu ni mel ndax sant bi mu sant ku ko sant <laughs> fa mu am ànd ak njàmbarte ah, mi ngi noonu Sadio Mané waaw du yow de <laughs> ah, maa ko conseillé laaj na ma ma am nu mu war a ba gis nga ko bi noonu <laughs> incha allah Aliou Cissé buy woote ñaari match yi faw mu ñëw bu ñëwut kon match football du am fii Sénégal ñëw ci eh, ki nga xamante ne mooy Saudi ah, ah, <coughs> Arab bi <coughs> waaw mi ngi noonu kon Sadio Mané ak Al Nassr tey nag dafa mel ni kon ñoo war a football ak eh, Al Wehda mi ngi kon gis nga war a pour enchaîner ndax Sadio tamit commencé na kon Pape Matar Sarr eh, nga xamante ni kon ñoom ñooy waa Tottenham mhm. et puis tamit ñëw ci Lionceaux yi nga xamante ni face kon ci Léon Sarr ah, jëm ci tournoi final bi nga xamante ni kon Sénégal suba la war a ci UFOA et puis tamit les grands débuts de Michael moom mi nga xamante ni gis nga ko ren la nekk war a football ak ñii di waa Paris Saint-Germain. merci beaucoup Chérif mu yëgle kaay li ñu xëy tey ci aljuma ji ci kanam dinañ.